ku mënul fay moom gis gisuma gisuma la te bawol bawol moom xamul ndox mënul fay ñoo ngi may nettali ñoo may nettali benn bool bool bu ñu tabaxaloon kër ba def ca piscine ba def ca kii baignoire baignoire ñëw livré ko kër gi gars dañoo toog ci biti rek dégg muy yuux nekk ni dafa dugg ci baignoire ba mënul génn foog ni lab na nag kon ak ni muy toll yépp ce minimum la amul fi ci deuk melni Touba nee tek lañ ci pose première pierre pour benen hôpital waye ñepp dégg ngeen ciowli seddo séddoo nañu xaalis ba mu yàgg 2014 ba léegi nga pose première pierre xaaliss ba dégg na seddo nañ ko tasna kon li ma bëgg a wax foofu rek moy am réew lu sérieux moo koy defar